dal leen jàmm seen boutique Seck et frères da nga bëgg téléphone télévision rajo wala sac yegg si nga Seck et frères am nañu ay téléphones yu rafet ay téléphones de marque waaw ay téléphones de toute marque iPhone Samsung Tecno mani téléphone boo ci bëgg yegg si gaaw fii Seck et frères boole ko nag ak ay qualité yu am solo mani te loo si xamul am nañu aussi équipe technique bi nga xamante ni saa bu sa téléphone amee problème boo ko andee fii si sekk et ñu daal di koy réparer si ay simili yu néew suñu ay écran plat nag waaw ay écran plat yu rafet de dernière génération Seck et frères li foofu ndax kat am nañu ay table waaw table télé wala sax taabul salle boo si bëgg daw sil fii gaaw si Seck et frère Seck ni am nañu aussi ay montre waaw ay montre yu rafet ay montre yu jekk si loxo yu rafet rafet yu nga xamante ni soo ko takkee foo toll dañ lay daal di xool sekk et ñu ngi fii si Yaraax janook marché Yaraax bi suñu numéro téléphone 77 677 80 55 wala 77 042 00 72 wala sax 70 841 15 55 waaw. waaw. sama doom day tey dañoo juboo de man bu nekkoon ne rek ma jubóog moom mais du woor te foo ko fekk mu ngi waxtu rek mel ni ku wóor a di kii mais sama papa war nañu wax moom parce que li ñu indil kenn xamul sëriñ la kenn xamul dof la kii est-ce que sax corona jeex na mais mën na ko indiwaat si dëkk bi. ma jub dem sama yoon يا حمد يا حبيب محمد يلا شاد السلام عليكم waaw sëriñ bi yow na naa la ñu ngi ziar di naa la gis waaw alhamdulilah lépp xam nga léeg-léeg damay jàpp dëgg moo tax kër gi parfois dañuy def ay fan bi ñu gisee. mais terewul quand même j'ai donné des conseils xale yi. Hmm. pour que vraiment ñu topp la lépp lu war ñu def ko. dëgg la la dëgg la mais man damay jàpp quoi. mais ba yaa si jàmm bu baax rek. Ah waaw sant yàlla bu baax. d'accord alhamdulilah waaw yaa ngi si jàmm rek alhamdulilah alhamdulilah mais sëñ. waaw. Euh, gis nga li mu mujj a jox. waaw waaw waaw waaw te ma waroon ko sangoo ci euh, ci ci ci bëccëg bi noonu. bëccëg bi. waaw voilà. xam nga yow wax naa la ma ne la. Mhm. est-ce que duñ ko kii guddi gi nga ne ma non guddi gi baaxul mhm. mais en réalité man guddi gi laa gënoon gis ko mhm, tu parce que bëccëg bi moom c'est très difficile pour kër gi nga kenn bañ la gis xam nga sama sama sama bi Big Zaa. Big Zaa waaw waaw. mais moom moom moom moom moo ma gis. mais sax yow Big Zaa moo la pësëri ah mais xaw ma mais en tout cas man xale bi jaaxal na ma man dama ma sax yéem à la limite. Big Zaa man xaw ma rab la man xaw ma lu mu doon. ci kër waaye yow man la gën a jaaxal. man booy bi dama ko jur ba pare après finalement daf ma jaaxal man booy bi xaw ma ban façon nit la. moom nen man j'ai rien compris sangu kenn waru la gis mu taxaw ni la buqi ay bëtam kii dafa mel ni war a ñëw si yow est-ce que dem si moom sax. ah mais <laughs> loolu su naree am ma sàkkal ko pare. ah parce que booy bi kii. man duma la jur ba pare war la yore après yow finalement tu me causes des problème chaque fois. man de man compris léegi daal xam nga problème bi mooy lan mooy yow seetal ma leneen lu gën a oyof loolu. loo xam ni c'est pas très compliqué quoi. léegi xam nu def. waaw na benn sunguf. waaw bu ah! sunguf bi rek dafa am lu muy àndal. nga fekk dof bu góor buy dox. Ah. nga cibb tànkam ak yuutu néew. non non non non loolu dafa compliqué saa yi. te man ay affaire néew dama ko sax ñemewul d'abord. ñu ngi néew ay affaire néew yooyu noonu. non. kooku moom c'est trop compliqué gars yi sa nga néew ñu wutal moom waxal leneen lu gën a oyof loo xam ni c'est faisable damay xëy def ko sans problème mais ay yuutu néew ak ay yuutu golo non tout ça c'est compliqué non non sëñ bi kooku moom. mais say mbir dina bëgg dina dëgër de ah yu du néew yu du néew mënoo ko am yu du néew. non dafa jafe du ma ma ko mën man dèjà dama ñemewul néew man ñemewuma néew. xanaa nag saa buñ sa ngay néew par mën nga ko am.